Assalamualaikum. mbok internet yi setan sen site internet Ngoy TV ñu len bëgg waat len bu baaxa baaxa baax acca dem xam ngeen ne ki di modulo jakarlo na ak sita ñu jakarlo def sen face to face ñom ñaar modu wax jox sita mu wax ñu jangat ci biir signature bi nak lo xamanteni mom lañu Sabu bëgg ame, waxtaan ak yeen comme niñ koy defé rek sa bu combat amé wala sa bu face to face amé ba ca suba sa incha allahu rabbi ñu an ci ak yéen def ay jàngat ci li ñu xam ne nii moom la ñu gis ci biir jàkkaarloo bi ci xew-xew bu mag boobu nga amoon nga xam ne waa jàmbaar production ñoom ñoo ko organisé woon ñu ciy siyaar Masor Ba naam sani naa ko ay kaddu ay ay kaddu fan yale passé mais nag bu ma gisee lu rafet na dama koy wax su ma gisee loo xam ne wax nit wax na ko itam te rafetluwu ma ko it dama koy wax man loolu laa mel bi mu nee Tafatine Sa Thiès damaa gën ne rafetlu wu ko te nam ko waxee itam rafetlu wu ma ko mais euh, signature bu mu def dem mention spéciale organisé na ko wax dëgg fa yàlla nekk na itam signature bu am solo nekk na itam loo xamante nii day jëmale lam kanam surtout Jambar Production ndax ndaanaan yi ñu boole ay berekat lañu ay ndaanaan lañu mais dama ci gis benn xele bu ma frappé bi ma gisee ñu koy ñu woo ko dem muy euh, Papa bu Casamance Papa de bu Casamance muy jàmbaar di samp yoo xamuñu ko mais dañoo seetaan ay bidiwoom mu nekk Casamance euh, mu am kaddu gu mu wax dem nag ne ñoom Modou Lo couronne bi rek lañ ko oppe mii moom mooy roi des arènes u Casamance man nangul ko ko ndax def ko faa wone ñu gis ay jaloorem foofu yu baree baree bari moom mu koy def foofu nga xam ne moo di Casamance acca bi ñu jógee foofu itam dañuy ñëw nag tout droit ci li nga xam ne moo xewoon dem euh, suñaatiir bi neexoon na neexoon na trop sita ñëw na wane na boppam encore une fois mais pour man ba léegi Siteu dafa téye boppam xaw ma nag lan moo tax mu téye si boppam par rapport digganteem ak la dëgër bii weesu sita ba léegi diggantaan tarkindaa yi gisaguñu vrai Siteu buñ doon ñëw signature yëngal daaj lakk xam nga yuuxu ñëw ba ci sa agresseur door tànk bi ci suuf xam nga gedd ko ba léegi gisaguma loolu mën na am dafa am kersa bu dugg sa diggante ak Modou ba léegi wala déet mu ngi noonu gars yi ñu ngi koy laaj Siteu ndaanaan nga champion nga mais combat am nga combat Siteu dem nga Amérique ñëw ne nga dem nga Gambie lu des fi ak combat bi yaa ngi jon waar mais ndaanaan gënal entraîné gënal a préparé sa combat xam ne am nga bés bu rëy comme ni nga ko waxee woo séeréer yi woo ñëpp ñi lay jàppale ci bés bi ki ngay dajal moo tol noonu muy Modou Xarañ Lo di ndaanaan di champion te du foye bés démb Modou Lo dafa dox sa kaw ñëw ba ci yow ne la maa la gën a xoteeku loolu la moo Modou loo wax Siteu ne ko maa la gën a xoteeku fuuf te combat bi lu mu diire diire diire nee na Siteu mënoo ñàkk a ñam loolu nag Siteu bàyyi ci xel Modou nee na il faut nga ñam ah kaay bàyyi leen ci xel de Modou nee na Siteu Siteu il nga ñam ak lu mën di dem di nga ñam bàyyi leen ci xel nag bu baax a baax a baax a baax euh, dinañ ci analyser lu bëree bari mais signature bi dem gën a mënoon na gën a neex li taxoon mu gën a neex mooy ñaari mbër yi fi ñu demoon boo ba bëgg a wax ñoom ñaar foofu la signature bi jeexee ñaari mbër yi fi ñu demoon ba bu kenn ku nekk bëgg a développé li nekk ci yow génne li nekk ci yow signature bi gën a neex combat bi gën a am âge foofu la affaire bi jeexee te waru doon vingt deux heures vingt deux heures wala vingt et waroon na fa fekk mbër yëpp ñu commencé wax mber mu ne ñu jox la temps mais nag dafa am loo xamante nii moom gars yi ñu ngi koy ñaawlu c'est trop muy euh, animation bi quoi animation bi animation bi nag suñ ko waxee tëggkat yi taxul ñuy wax ñu yoroon micro central yi ñoo tax ñuy wax suñu grand Lamine Samba yow suñu royukaay nga suñu gaayan nga suñu waay nga nekk ci télé bu mag surtout mel ni TFM ñun ñi ñëpp suñu sit yi ñuy ñaan mu mel ni TFM wala mu raw ko mais ni ngay waaxoo mbër yi ni ngay profitoo mbër yi ci ay ci seen biir wax mbër amul lu dul signature mbër amul lu dul signature mbër dafa bëgg signature buy nekk signature di gërëm di sant ay mbokkam ni koy jàppale ci ay combat mbër yi dañ leen di war di may taa xam nga comme comme état bi nee na léegi mil wi affaire yi jeex ah bu vingt deux bu bu vingt et une heure jotatee wala vingt heures pile na fa fekk ñëpp vingt heures vingt deux heures bu vingt trois heures ba mil wi waaye foofu mber mu fa bëgg a sant moom ngaa sant ku la neex xam nga mais dem moom vraiment ah micro central bi moom zéro zéro voilà ci côté yëpp nag wax dëgg fa yàlla voilà mu ngi noonu waaw beneen yoon daal xam naa ne euh, sama frère yooyu nga xam ne ñoo nekk Ligue TV bu ñu animé woon dina gën a neex lool. Ah, keneen ki itam nag ah, gasto production bu ñu anim animé woon émission bi ah, face to face bi dina gën a neex mais xam nga pas ay mber ñëw nga leen woñal ñetti nit ñetti nit mber ay téeméeri nit ñoo leen di jàppale nga boog leen woñ la ay ñetti nit loolu baaxul quoi acca ba léegi ñu dellusiwaat ci ñaari mber yi euh, ñaari mber yi man dama gis benn complexe seen diggante ñoom ñaar benn ruuseel bu ndaw bu dugg seen diggante te est bu fekkente ne loolu yóbbu yóbbuwaale ci suuru lamb ja est ce que lamb ja dina neex ni mu war a neexee muy Modou Lo ak Siteu ba léegi ñu ngi gis Modou bu ñëwee téléphone am lay yor seeg kenn xamul yaaw saas ndax day jàng wala ay ay soora lay jàng wala yooyu muy jële Touba ci sama waaja yooyu lay tari foofu muy toog mais en tout cas doy na waar en tout cas man seetlu naa ka ne ak Modou am na benn rusaange wala benn joxe cer bu nekk seen diggante ba 100 pour cent ni Modou Lo war a yëngale yëngalewul noonu ni Siteu war a yëngale yëngalewul noonu te combat bi yéen a ko war a jaay combat bi yéen yéen a ko war a jaay ba mu saf sap waaw comme ni ko Ngoy TV di defee xaarleen ñu samedi ak Serigne Ibou borom Ngoye di ngeen dégg garaaw Serigne bu ñëwee boo wax ak yéen di ngeen dégg lu garaaw dina développé ci biir combat bi lu leer laa leen wax mais diggante Modou ak Siteu qui est ku daan baax na ku daan daal mayal tafaatin saas rek Sénégal jëm kanam waaw waaw roi bi ndax day delluwaat parcelle wala roi bi day dem jamagen jëm januar yàllaa xam daal mais mu ngi noonu en tout cas képp koo xam ne daal yaa ngi topp Ngoy TV yaa ngi safoo Ngoy TV di ma safoo man Moussa maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay su nag gars yi nga xam ne ñu ngi bitim réew fu ne ci àdduna gi la nit di woote di sant di gërëm ma naan leen wallahil asim maa leen gën a fonk fuuf maa leen gën a jàpp fuuf maa leen gën a bëgg fuuf barke borom Touba. dama mënul saa yu ma defee émission rek kenn ku nekk ma jaar ci sa tuur wax ci yow mais wallahi kon yëpp yéen ñëpp laa jàpp seen tur yéen ñi nga xam ne abonné ngeen ci site bi yéen ñëpp laa jàpp ci seen mais wallahi asim bégg naa ci yéen kontaan naa ci yéen ma leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen xam nga di len ñaanal jam bu baakha baakha baakha baax barki borom Touba waaw kep ko xamne dal yaangi setan Ngoy TV ak fo mon di nek ci aduna xamal ka ne man begg na ci yow contane na ci yow tong may sakku ci yeen ku abonné gul nga abonné ndax saison bi ni amna lu graw luñ len di wajal amna lu graw graw lo xamne ñu ngi len koy wajal ci saison bi inshallah rabbi amna nak ay émission yo xamne itam mu ngi waré fu kër gi jéeg ci biir këram émission yooyu mu ngi daw am na yeneen i émission yoo xam ne ñu ngi koy waaj ba tey fi ma ko daan waxee foofu laa koy waxewaat muy ci Ngoy TV waa Ngoy TV dañoo jël initiative mbëru Bawol yi ñu sargal leen sargal bi ñuy sargal nag defuñu ko ngir dara dañ koo def ngir plaisir bi ñu am ci Bawol bëgg bi ñu am ci Bawol moo tax ñu koy def kilifa yi nga xam ne te tey buñ leen wooyee taggu leen ñu bàyyi ñu rek jar na tax tey ñu def lu ñu mënul ñun amuñu lu dul bawol toppuñu kenn bool rek la ñuy topp muusu bawol moo ñu gënal gëleemu ndak ndakaaru fi ñu nekk nii ñun bawol lañu am bawol lañu am nag bawol lañu gëm nag duñ ko yemale ci suñu wax dañu koy yemale ak suñu jëf ak suñu doole ak suñu ñaq lépp lu ñu yar suñu yàlla borom borom bi may ñu gis ñoo xamante nii mën nañ ko bokk ak ñoom dañu koy bokk ak ñoom muy lan muy xele yi nga xam ne tey yàlla suñu borom def na ñu ngi yëngu ci làmb ñoom ñëpp képp koo xam ne def nga ay jaloore ñu mun a am lu ñu yëkkati teg ko sa loxo dinañ ko def mu am loo xam ne mën nañ ko jël muy saaru trophée ñu teg ko sa loxo dinañ ko def loolu yokkul kenn mais jaajëfal nit bu defee dara dañ koy jaajëfal sargal bi ñu bëgg a sargal xele yi muy ki nga xamne moy fils de BM dafa def ay jaloore moo tax ñu bëgg ko sargal bu ko defu doon duñ ko sargal mën nañu yëkkat suñu ñax teg ko ci loxo mu jariñoo ko mais dafa def ay jaloore moo tax ñu bëgg ko sargal ki nga xamanteni ni moy mooy euh, Sa Thiès bu ngangu nay dafa def ay jaloore moo tax ñu bëgg ko sargal yeneeni mbeer mbër yëpp dégg nañu seen palmarès def ngeen ay jaloore mais dañ leen di ñaanal yalla suñu borom bu déwénee kenn ku nekk li nga defoon benn nga def ko fukk ba ñu xoolal feet bii nii ñu dem ba ko yóbbu Bawol di ko fa feetee comprendre nga ñu dem ba ko yóbbu Bawol di ko fa def autorité yëpp di teew ministère yu patron yëpp di teew foofu loolu la ñu ñaan yàlla mais ñaan nañu yàlla def ko ren mu yem ci yeneen képp kuñ ci bëgg a jàppale daal ñaanal ñu incha allahu rabbi déwén yal nañ ko def mu gën a rëy gën a baax gën a kawe ci kaw a kaw ci barke borom Touba. dañoo bëgg a sargal mbër yi du question que ne dañuy xeeb kii wala kee ñun yéen ñëpp ay njambaar ngeen yéen ñëpp ay def ay jaloore yéen ñëpp la yemale amul xaj ak seen barke borom Touba man fa ma dëkk tey bu ma doon xaj ak seen fa ma dëkk laay dem mais. xajiwuma seen man bawol laay wax man bawol laa wax bawol lépp lu gën Cees rek dem ba Jurbel dem ba Touba man foofu laay wax duma wax ngooy Aliou la ba ma dëkk déedéet waaw ay champion nga fa ay a nga fa ay ñoom poti Reug Reug ñoom Gansek ñoom ñoom internet ñoom bébé dégol ñoom ñëpp a nga fa ay ndaanaan lañu pourtant mënoon naa dem ba ci ñoom mën a leen kaay ma sargal leen mais foofu lay yem ngooy lay yem mais defuma ko damaa dem ba Bawol ma tan ci biir Bawol ay nit tan ne diw la ñu war a sargal ma ànd ci ak ñoom ñu sargal leen te yàlla rek tax defuñu ko ngir dara ndax yoruñu dara mënuñu dara yàlla suñu borom la ñuy waakiirlu moom la ñuy jox suñu bopp. ñu ciy gërëm bu baax a baax a baax Gara Badajon ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax ci jàppale bi nga xamante ne nii jàppale nga ñu ko yaa ngi ñu ciy conseil Gara Badajon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci sant bi ñuy sant itam jëy seen ci yow lañ koy jaarale ndax yow yaa ñu jox numéro ba ñu woo ko ba waxtaan ak moom kon loolu itam dañ la ciy sant bu baax di sant jëy seen bu baax a baax a baax a baax a baax waaw jën seen moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant ki nga xam ne moo di falu Ndiaye Fallou njaay itam euh, Badajon moo ñu jox numéro ñu woo ko mu rafetlu ko itam wax dëgg fa yàlla waaw booy xaar suur ba jot bu mënul ñëw itam mu yónnee. kon lool rek ndam la lool rek sargal la lool rek lool rek la kon ñu ngi koy san bu baax a baax Grand Fallou Ndiaye di nit ku yàlla suñu borom baaxal nag barki borom Touba waaw di nit ku baax ñu ngi koy gërëm bu baax Asan Ndiaye bawal production yi tam dëggante naa ak moom di nit nit ku ñàkk ki ñaan man dama yaakaaroon ne asan dafa rëy mais asan nit ku baax la barki Serigne Touba man duma tag nit Asan bu ñu tase woon nii ci mbet mën na ma bañ a mais man xamee naa mais téléphone laa dégganteeg moom whatsapp yónnee ko léegi mu tontu ma ma xam ka ni kii nit la barki arxuraan di xaar itam bés bi ñëw pour mu ñëw encore wala bu mënoon ñëw itam mu yebal ay nit. xam kon lii nii ñun dañ cee war a kontaan dañ cee war a bëgg dañ cee war a def suñu kéemtilaay kattan ma ciy woo nag képp koo xamante ne nii Bawol moo la tax a jóg maa ngi lay ciy woo ci bés bi ngeen ñëw jàpp ci bés bi. képp koo xamante ne nii daal Bawol ngay xeexal Bawol moo la tax a jóg maa ngi lay ñaan ngeen ñëw jàpp ci bés bi. amuñu xaji amuñu seen képp ku ñëw rek ci nga bokk may woo nag bépp sit internet bépp sit internet boo xam ne yaa ngi bawol wala nekkoo bawol wala ngay liggéey ci site wala nga nekk bawol sax di liggéey ci site internet ñu ngi lay woo ci bés bii nii yéen ñëpp ngeen ñëw ngeen jàpp ci waaw incha allahu yi bés bu trophée yi paree dinañu def vidéo ne leen sur tel la ñuy joxe trophée yi fi ñu koy defee incha allahu yi dinañ ko wax bépp site internet daal ñu ngi leen di woo bay bàyyiwuñu kenn waaw programme bi nag incha allahu bi dañuy jël lépp teg ko ci loxoy Refane TV incha allahu rabbi buñ ci eggee dinañ ko wax yéen ñëpp wax leen ni muy demee wax leen lépp ci kattanu yàlla kon foofu lañu yem ñu ngi ciy woo nag Kara Tapha Tine bu baax a baax a baax Tapha bés bi sa bés la bés bi sa bés la mbay guy gi bés bi sa bés la njaay bés bi sa bés la yéen ñëpp Tapha man dinaa la woo bés bi seen bés la waaw seeni rak la ñuy sargal seeni rak la ñuy jox ay trophée jaajëfal leen ngir déwén ñu gën a góorgóorlu incha allahu rabbi bëgg nañ ci yéen sant nañ leen gërëm leen di bëggee 54 villages Ngoye Aliou Sylla yëpp jaajëf bëgg nañu bu baax a baax a baax merci beaucoup encore une fois jaajëf. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna képp koo xamante ni abonné go rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné. nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko Ngoye TV c'est meilleur Ngoye TV c'est meilleur leen di ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si